asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu nuyu mbokki jullit yépp di nuyu mbokki taalibe yépp di leen jox seen wàccuwaay te di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan sunu boroom subhaanahu tabaraka wa taala mu defal ñu jàmm ak yërmandeem ak ak njëggalam waaye di ñaanal kilifa diine yépp suñu boroom yàggal seen ab taxawaay may leen gudd fan ak wér ba li ñu nam ma liggéeyal diine yépp ñu mottali ko mu mel ni dañuy dellusiwaat ci suñu jataayal yóbbulum ndaw ñi comme niñ ko baaxoo di defee ci jamono yu nekk muy jataayal xam-xam waaye di jotaayal fàttalikoonte ci sunu wàllu diine sunu bàyyee xel nag ci suñu bind bi ñu nekkan di jàngale jawharun nafiis ñu ngi tolloon ci doon jàngale ki nga xam ni dafay julli ni mu war a teewloo ci biir julli gi muy bokk ci ngëneelu julli yi ak yi ñu sib ci biir julli kon dañuy mel ni dañuy dellu si tey ci sunu bind bi nga xam ni dafay jàngale nit ki buy julli xalaat gi mu war a xalaat boroomam dong lépp luy àdduna ak mbirum àdduna mu génne ko ci am xelam mooy teewlu gi muy teewlu ci biir julli moo tax mu ne faslun lii ab dog la yuskaru goog dana tudd fii ci moom alxusuuxu ak ragal yàlla fi salaat ci julli wama ak la nga xam te ni yataxallaku dana aju bihi ca moom xadd nasa yaxal na fii taalifihi ci taalifam ba man ka nga xam te ni alima xam na bi anna li salaati naka ñeel na julli nuuran ay leer xasuma goog màgg na wa anna zaaka nuura naka googee leer tasruxu wala yusruxu dana leeral bihi ca moom xal bu musalli xolub aji julli ja xaasixin kay aji ragal yàlla fanta bi na nga fa in ataytaha kon ndeem dikkal nga julli fanziha na nga nocci xal baka sab xol min haadihi dunya ci mbiri àdduna wama ak lépp loo xam te ni fiiha nekk na ca moom maha mboolem seen kon mu ne taalifkat bi ñuy wax abdurahman al aqdariyu moom sëriñ bi dafa wax ne ca taalifam ba wax na ne kat ne jullikat dafa am ak leer gu màgg gu nekk ci biir julli te leer googu nag day leeral xolu ki nga xam te ni dafay julli ki nga xam te ni dafa ragal yàlla ci buy julli ci biir julli dafay leeral ab xolam kon nag nanga fexe ba heure booy julli waxtu woo xam ne yaa ngi julli rek na nga teewlu sa jëmm sa borom ji màggam googee nga xam ne kat leeru julli ga dina tàbbi sa biir xol bi nga moy moytu lépp loo xam te ni mbirum àdduna la nga koy xalaat lépp na nga ko génne ci sa xel te teewlu sa borom kon boo ko defee kat di nga am leer gu màgg googee muy leeral sab xol yow mi nga xam te ni ab jullit nga mu ne waxtaxat waxtaxidan na nga fas na anna salaataka naka julli xuduuxun ak toroxlu la bi sajdatin ci sujoot wa bi xiyaamin ak taxawaay wa rukoox ak rukoox wa annaha naka moom julli tawaaduxun ak toroxlu la lillaahi ngir yàlla subhaanahu solil naa lépp lu yelluwut ci moom fama lahu déddi ko ñeel mudaahin jenn aji nuloole bi xeesihil asiyaa ci yila mbir wa duhaa e ak ñaan wa zikri ak zikar wa tasbihi ak sàbbal wa nidaai ak woote aydan ba tey wa ijlalun ak ak màggal wa taazimu ak màggal lahu ñeel ko bi xafdin ci rukon wa takbiiri ak kabar raaxe na nga sàmmonte kullahu léppam mu ne nanga xam ne kat booy julli na fas ci sa xol ne julli gi ak toroxlu la ci sa boroom ci biir gi julli gi ak ci biir ci ak ci biiri julli gi maanaam li ngay fas ci sa xol muy biir julli gi ak li nekk ci biti nga xam ne lu mel ni kàbbar yeeg rokon yeeg sujjóot yeeg loolu lépp ak toroxlu la ci sa boroom ci sa kanam boroom ak sàbbal gi ngay sàbbal ci biir julli gi nga xam ne boo rukoon li ngay wax ak boo sujjootee li ngay wax sàbbal yooyu yépp na nga xam ne ak toroxlu la ci sa diggante sa boroom yooyu yëpp na nga ko fas ci biir julli gi nga xam ne kat yaa ngi taxaw jàkkaarlook sa boroom mi nga xam te ni moo la bind te amoo kàttanu matal xam dëgg-dëgg kon na nga toroxlu ci kanamam màggal ko wàcce sa bopp ci biir julli gi nga xam ne sujjóot yi ngay sujjóot ak rokon yi ngay rokon ak sàbbaal yi ngay sàbbaal sa borom ci biir julli gi lépp ak toroxlu la kon loolu nit ki daf ko war a fas ci xolam buy jàkkaarloog boromam te xam ne kat julli lu màgg màgg la ndax julli kat lépp loo xam te ni sàbbaal la ci malaayika yi ñi ngi koy sàbbaal dañ koo dajalee def ko ci biir julli kon kii julli sàbbaal goo xam te ni benn malaaka mi ngi koy sàbbaal dëkkee ko am na beneen malaaka buy sàbbal geneen sàbbal dëkke ko ñu boole sàbbal yooyee defal la ko ci biir julli booy julli nga indi sàbbal yépp kon nag julli kon lu kawe la kon daraja ju kawe la mu ne wa ak ngay watoon teeg ala salaati ci julli annaha naka moom kat xayrul ibaadaati mooy gën ci jaamu yàlla yi fa aziman kon na nga màggal saxnaha ay mbiram laa tatruki bul bàyyi as saytaana saytaane xataa yàlla xaba ba dana fowee bil xal bi ci sab xol laa tamil bul jeng lëxu ñeel ko fa tox taba ba def na la yedd li annahu naka moom kat saytaane yett misu day far nuur xal bi ka sa leeru xol ga sa leeru xol bi wa yaxrimu ko mu lay xañ lazatan bànneexu julli ga min nuuriha ca leeram nga moo tax mu ne xalayka dénk naa la fiiha ca moom bi idaamatil xusuuxi saxal ak ragal yàlla wa zuhdi ak dëddu fii umuuri dunya ci mbirum àdduna wal xuduux ak toroxlu mu nekkan na nga wattandiku bu baax ci biir julli gi sàmmoon teeg julli gi bu baax a baax <coughs> nga xam ne kat julli gi kat moom ngay def nii waaye mooy gën ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla yàlla ga ca gën na nga xam ne mooy julli sagam mooy jaamu yàlla gi gën na nga màggal léppam na nga fexe ba màggal ko moom julli na nga wattandiku seytaane na nga ko moytu de ndax kat seytaane dafay yàq sab xol di ko fowee kon nag fexeel ba bul jeng jëm ci seytaane ci biir julli gi ba kon nag boo ko defee kat da des na la yedd ëllëg na nga xam ne kat seytaane moom leer julli am ni kawee ak bànneex bi julli am ni mu neexee loolu seytaane dafay fexe naxante ak yow ba yàqal la loole xañ la leer julli waaye xañ la bànneexub julli saytaane moom loolu rek la bëgg kon nanga fexe ba na nga wattoon teeg julli ba boo demee bay julli nga xam ne yaa ngi def jàmm yàlla gi gën a kawe nga fexe ba seytaane du la nax di jax-jaxal sab xol di la yàqal leer gi nga xam ni dafa nekk ci biir julli tam koy sànni ci sab xol tamit muy bànneex bi nga xam ni moo am ci biir julli da nga moytu balaa la seytaane yàq kon nag maa ngi lay dénk na nga saxal ak ragal yàlla ak ak dëddu dëddu bépp mbirum àdduna danga ragal yàlla te nga toroxlu loolu kat boo ko defee di jariñ waxalam na nga xam bi annaha naka moom julli tanha dana tere bilaa xafaa in ci lu dul nëbb anil faxsaa i walif ñaaw téefi wa munkarin ak lu ñu sib ya munkar mën nga woo tuddee luñ sib mën nga woo tuddee tamit lépp loo xam te ni lislaam bëgg ko mooy safaanul maxruuf kon daal na nga xam ne kat julli ñi ko sunu borom waxee ci alxuraan ne inna salaata tanhaa anil fahsaa'i wal munkar ko julli dafay musal nit ki ci muy def ay ñaawteef day musal nit ki ci muy def lu suñ tere ci biir ak biti laakin naza waaye googee julli bi sababil xusuuxi mooy sababu ragal yàlla mooy julli ragal yàlla laa bi xayrihi du caagéene bu dul moom faq sa na ragal yàlla wa naa ita sore almala yuqat mu ne na nga xam ne julli gi nga xam ni moom la yàlla di wax ne kat nit ki bu jullit bi bu koy julli julli googu day da teree mu bañ a def lu bon da koy tere mu a def lenn loo xam te ni yàlla bëggu ko al faxsaay mooy ay ñaawteef wala munkar ak yuñ tere mooy ñaawteef yeeg liñ tere yëpp julli gi daf koy musal ba dooru ko def julli googu nag mooy julli gan mooy julli gi nga xam te ni nit ki bu koy julli day ànd ak ragal yàlla teewlu kàttanug yàlla gi julli googee kat moo man loolee waaye bu dee julli goo xam te ni kat danga koy julli rek ngir naa ko def te jóge fi déedéet julli gi lay may ak ragal yàlla mooy julli gi ngay teewlu def ko ngir jëmm yàlla def ko ngir toroxlu def ko ngir sàbbaal sa borom julli googee de boo koy def mooy tax mu tere la ay ñaawteef ay jëf yu ñaaw ak bàyyi lépp lu suñu tere nee na kat julli googee mooy tax nga mën a am loolee moo tax nit koy gis muy julli rek te teewut mi ngi def ay ñaawteef rek teewut mi ngi def li suñu borom tere rek ah xamal ne kooku julliwul de waaye julli moom boo ko defee faaw li suñu borom wax diñ ko am dina tere doo defate du bon dina tere lépp looy def lu ay ñaawteef nga bàyyi ko waaw mënta ñàkk ci kaw nag nga def ko nam waree fa kun na nekk walla nga ne fastaxin na nga dimbali ko bi rabbika ci sa borom al sa sunu borom mi nga xam te ni mooy aji dimbali ji kun nanga nekk nekk wastaxanat di aji dimbali ko wala nga andi ci fa kun na nga nekk zastixaan di borom dimbali ko bi rabbika ci sa boroom almuhini kay aji dimbali wa inis taxanta neem dimbali ko nga bi xayrihi ci kudul sa boroom laatu xaan deefu la dimbali mu nekkat na nekk koo xam nii dangay ngay dimbali koo ci sa boroom mu ngay dimbali ci sa boroom mi nga xam te nii mooy aji dimbali ji mooy yàlla mu ne nag bu fekkee dimbali ko ci yàlla dangay dimbali koo ci keneen kudul yàlla na nga xam ne ah deefu la dimbali de waaw kenn du la dimbali doo am ko la dimbali moo tax mu ne fa kun na nekk zastehaan di borom dimbali ko bi rabbi ci sa borom almuhin sa borom mi nga xam te ni muy aji dimbali ja wa inistahanta neem dimbali koo bi xayrihi kudut sa laa toxaan deefu la dimbali kon loolu la jeexale bunt bi kon bunt boobu moo doon jàngale li nga xam te ni mooy leer julli ak nit ki nga buy julli teewlu gim war teew teewlu ci biir julli gi lan mooy ay njariñam ak jullik aji yàlla gi lan la koy dikkal ak li suñu borom wax kan ne julli day tere nit ki def ay ñaawteef ak lu sib julli googee ki ko bëgg a am fan lay jaar mooy nii kon daal julli nañ fexe ba heure bu ñuy julli dañuy yéenee julli ci jëmmi ñi suñu borom fas yéene yéene toroxlu ci lépp lu ñuy jëf ci biir julli gi fa yéene génne suñuy xel ci mbirum àdduna yépp jël suñu xel jëme ko ci biir julli gi ndax loolu mooy tax ñu am dëgg-dëgg njariñu julli kon ñu ngi leen jox ci daje ci beneen jamono di wàcce fii kàddu yi di ñaanal mbokk jullit yépp jàmm ak tawféex ak mujj gu rafet suñu borom xol yu sell yu mën a taataan leer borom bi subhaanahu wa tabaraka wa taala ñu ngi nuyu ñi nekk biir réew ak bitim réew di leen ñaanal jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi